alhamdulilah comme na ko Benjamin Mendy waxee woon ban ko tuumalee ba dindi tuuma bi yëpp ci moom ci wàllu viol am na mujj ki ab club bu bees mu ngi noonee salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ko ci nekk seen tur seen sant kooku di Benjamin Mendy nag yéen a ko gën a xam dundoon na fi dund lu metti ñu tuumal ko wàllu bi viol ak ñoom seen waaye finalement ñu ne loolu yëpp dara amu ci. te mu ñàkk deux ans yoo xam ne entraîné wul footballul foofee ca Manchester City doonoon bu mag jógee fa mënatul football lu def dara ñëpp foogoon ne carrière am yàqu na alhamdulilah mujj signé foofee ca Ligue 1 française ci club bu ñoom Cheikh Ahmadou Bamba Dieng ñu naan ko mu doon club boo xam ne nii vraiment ñoom sax liñ def idée bu am solo la waaw ci wàllu marketing dinañ ci gagné lu bëree bëree bëree bëri nag dañoo ñëw fekk jamono ji jour bu ëpp coow bi ëpp buzz jamono ji nga xam ne moo ëpp lu ñuy wax ñu ñëw jënd ko man Benjamin ñëpp xam nañ ne tànk yi amatul lu bëri ci wàllu entrainement wala football et tout il faut mu nekkaat ci benn six mois pour wala benn trois mois ferme boo xam ne dina mën a nekkaat ci temps nag deux ans yëpp ci ay problème la nekkoon tal woon entraînement sax nag day ko téye woon mu ngi noonee boo xoolee waa Lorient actuellement seen compte Instagram cent vingt cinq mille la abonné waaye dayoon xool fii ak dina atteindre mën na sax atteindre un million d'abonnés fii ak quelque trois jours wala deux jours mën naa atteindre cinq cent mille abonnés ba ba un million d'abonnés seen plateforme yi daal dina gën a non seulement euh, nit ñi dinañ leen dinañ kontaan ci geste bi ñu def. ba ba mu nekkee ci ay problème ñu accueillir ko indi ko si club jënd ko lu ma dina fa signer contrat euh, trois ans euh, pour mu a woyal foofee ci Ligue 1 française mu doon geste bu rafet boo xam ne ñëpp a koy saluer vraiment merci à Lorient mais nga xam ne bu ko neexoon bàyyi ko noonu mu ne ci ay plaignants yoo xam ne nii vraiment mooy loolu mais courage à toi Benjamin Mendy football bi àdduna moo demee noonu gën a la góorgóorlu rek tamaytu bu baax a baax te xam ne ne lii di ñëw incha allah mooy daax kookee di Benjamin Mendy signé na foofee ca Lorient ngeen xamonoo ko noonu mu ngi noonee gars yi kookee di Nico Gonzalez nag waa FC Barcelone di leen leeral que ni moom boole ko ci jour yi nga xam ne ñoo war a def tournée foofee ci États-Unis dana ko sa temps de jeu déwén du yomb mu ngi noonee ci noonee nag la euh, Porto actuellement placé wu ngir war a mën a jënd kookee di Nico Gonzalez mbir mu ngi avancé du yàgg dara peut-être dem euh, signé foofee kookee di Romelu Lukaku nag euh, Arabie Saoudite ñu ngi ciy teg pressing après bañ gisee ne am na coow diggante mook Inter waaye Juventus Turin yeex na ci mbir yi li waral lool Vlahovic faaw mu jaay ko pour mën a jënd kookee di euh, Lukaku ci noonee nag la Arabie Saoudite di teg pressing di xaar kookee di Juventus Turin dano renoncer ci transfert boobee mu dugg ci jënd kookee di mi nga xam ne moom dafa privilégié nee na ba tey Europe foofu la bëgg euh, toog kookee di mag euh, doxeeti moom nag delluwaat na euh, foofee ca Wolverhampton mu muy noonu visite médical beeg lépp mat na macha allah mu doon joueur boo xam ne ni dafa defaat retouram ci clubam boobee carnet ya nag chouk. wuy Meka moom nag euh, dafa bëgg a toog Chelsea neen dafa bëgg a war na ne euh, joueur bu mag la tey war na mën a jàppale Chelsea bu baax a baax neen dina toog ak Koke di Pochettino euh, teg ak moom ay kàddu yu leer nañ mu ngi noonee gars yi di leen leeral que ni le jeune joueur bi ñu naan Ethan du leeraloon nañ leen ne dafa rejoindre Leeds United finalement c'est fait 7 millions d'euros lan ko jëndee Chelsea googee la jóge war a dem woyal bu baax a baax mu ngi noonee coach ci Tottenham bi nag mu ngi leeral que ni ñoom actuellement seen bébét mooy mooy jënd benn ak central te loolu nëbbuñu ko amuñu ci dara lu ci kii ci kanam tuuti incha allah dinañ ci jéem a jaayante bu baax a baax xool nuñ koy indee mu ngi noonee gars leen leeral que ni FC Barcelone mujj naa officialisé kooku di Oriol Romeu moom mi nga xam ne moom leen daan annoncé que ni ah, moom mooy euh, remplaçant au Sergio Busquets pour le moment kooku baax Barça lañ ko formé ba Busquets nekkee Thiago Alcantara euh, place de titularisation c'était menacé après si la fa jugee rejoindre euh, actuellement ni FC Barcelone jóge foofee ca Girona gars yi moo nekkoon xibaar gi leen wax képp koo xam ne nag abonné go suñu chaîne YouTube dugal suñu bio TikTok nga bës logo bi YouTube bi mu yóbbu la chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche bu ko defee benn suñu vidéo dootu ne daw jàmm ci yéen ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous. Euh, certainement qu'elles veulent marquer le premier but très tôt on va voir corner euh, bal bi dafa rebondir tranquillement ah mu natt ko daal di lakk caax yi le Sénégal euh, qui ouvre le score et je disais tout à l'heure que c'est voilà je disais tout à l'heure qu'elles veulent vraiment marquer très tôt cet après-midi euh, en tout cas ils ont mis la pression ils ont fait également un pressing tout terrain et voilà sur le plan tactique euh, Raoul le disait tantôt le Sénégal euh, ayant fait une, euh, une très bonne entame de match. Euh, Et finalement, euh, c'est payant un but à zéro pour le Sénégal. C'est un but marqué par Nguenar Ndiaye. Nguenar Ndiaye, la grande buteuse sénégalaise. Voilà. Là, Nguenar. qui ouvre le score ici au Stade Ladior. Gay Teranga également. Euh, Gaïtaranga, un grand coucou à toi, mon frère. Et merci à Amadou Tidjan Mbalo. Attention, c'est le but oh, Magnifique cette action Oh là là là là là C'est magnifique cette action ah, Super Ça Super cet mhm. esprit de solidarité, ça Voilà, elle va prendre ce ballon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer C'est... Oh, oh là le oh Troisième. but, Papis Le troisième but du Sénégal Korkafal, Molakachari a longtemps traîné quand même dans, euh, la surface de réparation. Oh là là Oh là là eh, qui vous disait que 5 le bug ah Alors c'est, sur la, on est sur la voie, mais quand même, ce match-là euh, commence à devenir facile pour le Sénégal. Encore un pressing au Papis. Et cette fois-ci, c'est Sadigatou euh, ah, euh, Diallo ouais. qui a récupéré le ballon. Un pressing haut du Sénégal, un pressing payant. Donc Mamoussa a en de la première manche. c'est Maman Moussa qui est vraiment... La patte de euh, l'entraîneur. la que on réclame le quatrième but Est-ce que ça va arriver sur ce coup On va voir allons directement la ko def ci bi yàbbi na et c'est Ndenar il est arrivé sa <laughs> quatrième but. il est arrivé sa quatrième but. il est arrivé ce quatrième but. Fatou Diallo il est arrivé voilà Ngenar Ndiaye lakk na alors que depuis tout à l'heure maa ngi doon commencé mer di laaj quatrième but mais finalement elles m'ont entendu et ce quatrième but est arrivé pour le Sénégal. C'est ce qu'on appelle euh... battre quelqu'un à plate couture voilà ce que le Sénégal euh, a réussi à faire. Ah coup oui. franc de Anta Dembélé. magnifique faute de main de Lounas Lamia comme la dernière fois. mais oui et Nguenar très bien placé. dans les mêmes conditions a poussé le ballon au fond des filets. la seule différence c'est que la faute de euh, de vendredi est allée directement dans les donc euh, Tchitchari. mais bi sa faute de est revenue donc. tranquillement